yor dafa jot ñu jëm ci kanam ñun amatuñu tànku ginnaaw tak kanam rek moo fi am ndax gis naa ni nit boo amee jangor da ngay xool rek ku la ko mën a soit nga dem ci médecin yi wala nga dem ci maamu yi ñun nag dafa am kenn nga xamante ni ginnaaw bu yàlla weesoo moom rek la ñu am yaakaar muy kenn muy Mamadou Racine Sy Podor yëpp nag ndaw Podor yëpp nag dañu engagé taxaw loolu li koy mooy keroog caravane bi ñu njëkk def si Podor muy activité bi njëkk si élection bii ñu jëm ndaw ñi ñoo jël seen ay engagement boobu suñu candidat duggugul dëkk bi ñu jël suñu engagement taxaw def caravane bi nga xamante ni Podor yëpp génn ñu bëggoon aussi suñu candidat fekkee loolu moo lay wan ni ñun élection yi dañ si dem ba jeex dem amul dellu ginnaaw ba ñu jël suñu candidat le 23 janvier nekk na fi feebar yi wàññeeku nañ fi dispensaires yi équipe nga leen enseignants yi dematuñu ñum ndax banque yi. Mamadou Racine a beaucoup innové a innové la commune de Podor. du changement. c'est de l'émergence. Macky bu mu tëkkee Sénégal émergent Racine bokk na ci généraux yi nekk ci kanam. ndax Macky Sall xam na la. Oh, oh. Oh, Ana Toman mono o eh, mama rasinsi yaranda ñam parki parki o eh, mama rasinsi jom jumade jamaji o eh, mama rasinsi jom jumade jamaji o mama rasinsi ana topani si ñi fi toog nag mënuma bañ a remercier suñu président comité électoral di Assane Yaba Mbodj di ràññee itam ci kilifa yi nga xam ne fi toog rugi maam Ndiak lii li nga xam ne moo fi nekk ko gërëm bu baax ci taxawaayam di gërëm itam monsieur le maire Mansour Sall bi nga xam mi fi di ñaanal itam suñu sœur Aminata Astel Sall yàlla defal ko jàmm di nuyu itam mam Oulé Wane yi fi nekk ñëpp xam taxawaayam ci biir Podor ak ñi nga xam ne ñoo fi jot rotal ay kàddu mu Cheikh Seck ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci wax yi ci wax depuis fan yi yëpp gis nañu sa taxawaay Ali jong itam ci jeunes yi ak ñoom amital gis nañu deg nañu li ngeen wax ak Ibrahima Gueye deg nañu li ngeen wax te li ngeen di wax jàpp nañ ko bu baax a baax li ñuy ñaan suñu borom moo ñun dañu gëm te ragal te xam na ni duñu dara dara dara dara dara lu dul rek ay doomu aadama dañuy ñaan suñu borom rek yéene yaakaar bi ngeen am ci ci ñun yàlla na bu ko suñu borom tas yàlla na suñu borom def ni yaakaar bi ngeen am ci ñun ci ab diir bu ñu fi yàlla toogloo yàlla na ngeen gis ko ci suñu ay jëf loolu ñuy ñaan suñu borom euh, loolu rek moo mat a jaar li mat a ñaan itam mooy nañ ci mbir yii ñu jëm yàlla nañ ci dugg ak jàmm ak salaam génn ci ak jàmm ak salaam te mu nekk euh, li nga xam ni moo gën ci ñun gën itam ci Podor loolu rek moo am solo ñun de bu dee suñu sago Podor moo ñu gënal lépp Podor tey jii chef lieu de département la bu doon suñu sago bu nekk chef lieu de région bu doon suñu sago lu ñuy seddale Sénégal Podor jiitu ci te xam naa ñun ñëpp bu ñu àndee nekk benn loolu suñu borom dina ko def mënuma itam jeexal te nuyuma itam sama jigéen sama xarit di sama mbokk di Aysata Moussa Babali Tall xam ngeen ni bu mu fi ñëwee barki démb fekk na ma Dakar moo tax fekkeewuma mbir mi waaye maag moom réerewuñu dañu déggoo wax ji rafet ji mu wax itam dégg naa ko yàlla na ko yàlla fay yéene bi ma am ci ci ñun bu ñu ànd bu tey jii bu ñu toogee ba ànd maag moom bokk gis-gis pour lu jëmale Podor ko Podor nañu jàpp ni mag yu baax yi tëdd Podor ñoom la seen ñaan suñu borom nangu moo tax ñun ñëpp ñu ànd nekk benn yàlla na ànd boobu nekk li gën ci Podor ba mbëbët yi nga xam ne am ngeen ko ci xale yi amuñu liggéey mag yi itam li ñu soxla yëpp yooyu dégg naa ko moo tax ci innovation yi nga xam ne dañ koy defar bu soobee yàlla fii daañu fait créer une régie une régie des travaux municipaux bi nga xam directement ñi nga xam ne ay électriciens la ñu ñi nga plombiers, ne dem ay plombier la ñu ñi nga xam ay la mairie bi moo leen di liggéeyloo ci des travaux d'intérêt public parce que loolu soxla nañ ko fi comme ça ku nekk am looy fayeeku weer bu dee loolu loolu lu tuuti la ci suñu du lépp nag lu ñu wax mais li nekk suñu xool ak nekk suñu programme gis ngeen ko yàlla na ci yàlla nañu ko yàlla yombalal maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam